the United Democratic Party UDP continue their revelations on the allegations of electoral malpractice by the President Adam Barrow and his NPP. The opposition accused the Independent Electoral Commission of complicity in alleged monumental illegal registration of voters. The party rejects the result on 4 December 2021 and unsuccessfully sought to have it annulled at the Supreme Court on the grounds of fraudulent act by the IEC. Addressing a media conference at his residence at Pipeline, UDP leader Hussein Udabo said the IEC, in comply with NPP, stole the Gambian's people verdict and produced a Rugo register that benefits NPP the Independent Electoral Commission and MPP perpetrated monumental fraud on the people of the Gambia, and the court refused to hear us. As I speak, the Independent Electoral Commission is sitting on tons of evidence of this fraud, which they will not make available for Gambians. It is only the court that can force them to do that. The United Democratic, the United Democratic Party leader also accused IEC for extending their registration period. The leader of the United Democratic Party, UDP, um, Honorable Lawyer Usainu Dabo, uh, actually continue to accuse uh, IEC of complicity in illegal um, registration uh, during the December 4th uh, presidential election. Nyimi ko miyalon ko min bota nying mola na miyalon ko nsafo ko min ko banko uh, mama mfama minketa kata um, lawyer um, uh, Usenu Daboti atala kata UDP the United Democratic Party ila party leader party leader tip kabrin karte fayo kata ka famiya ko ko president presidenti eh, ala nyin fayo nga kala ko min ko di united democratic party iman son ko min ko nyin karte fayo nyin tilingo la kono woto hani bi nyin ibe continue kana kay tandi mo la ko min ko am eh, evidence wol min soto mi yalan ko min ko wala ya sabu iko karte fayo nyin min kata nyin president adama baroti ama win ka nyin pour ka ka president oti to lead our beloved nation the gambia a ah, wala kibaro te mi yalan ko min ko nyin ba nafi min be dendi politiko karola but as time goes on we will will tell you everything about this amazing salaamaaleykum beneen yoon mbokki àddina wërngal képp nuyu nañ leen jaar leen macha allah ñu ngi am mbégte sant yàlla bu baax gannaaw bu ñu ñu fekkee beneen yoon. Eh, tey nag ci bés yu talaata ñu ñëwaat ak yéen eh, fii ci Sahel Network nekk ci diwaani Banjul Independence Drive eh, ñu leen ay amal seen programme The Morning Show ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne nii moom mooy politique politique bi ñu leen indil tey nag ki nga xamante ne nii moom mooy njiitu nombal tànk UDP di lawyer Oussainou Darboe moom nag ba léegi mu ngi taxaw ak tànk yu dëgër ci miim li nga xamante ne nii mooy élection bi ñu doon amal ci December fourth nee na moom ba léegi li nga xamante ne nii mooy ndam bi bi jox nañ ko kii di euh, his excellence président Adama Barrow ànd ci euh, te ba léegi nag mu ngi koy laam-laamee nee na euh, ba bañ tey daal faskee ni na taxaw xeex li nga xamante ne nii moom mooy ndam bi nga xamante ne jox nañ ko his excellence président Adama baro lii nag nekk na mbir moo xamante ne nii wax dëgg yàlla ñun moom fi nekk nii xamatuñ ci lu bari ndaxte bu fekkente ne nit ki gañe na ñu jox ko li nga xamante ne moom mooy ndam ba mu def ay weer te ba léegi yaa ci am ñu njaaj Eh, wax dëgg yàlla ki nga xamante ne nii eh, moom mooy looya Ousseynou Dabo daal eh, liñ ko war a wax rek mooy na naan ndox te muñ wax dëgg yàlla te xam ne ndam bi daal kii di di sun sun sun suñ his président Baro jël na ko nan nangu ndogal rek waaye nag ci kanam tuuti dinañ leen ci gën a indil ay leeral incha allahu rabbi incha allahu waaw li nga wax rafet na naagis na trop ndaxte dañuy julli ci Seydina Muhammad sang sang yi sant suñu borom bi rabbi samawati wa maa fil ard nga xamante tey ji bu ñu fekkee bés bi tey moom la. dëgg la du jóg na di jaale gàmbe yëpp suñu bàyyi ki naan mu Modou Lamine waa Jowaara di gaynde jàmbaar fakk te dof dof ci politique gàmbe lu bari. neen na suuf si waa si kawam ak moom mboolem ñëpp ñu ngi fa fekk. ñi nga xamante ne ñu ngi fi tamit njaboot mi fi bàyyi ci ginnaaw yal na yàlla teg ci loxo. ak ki nga xamante mooy journaliste boobu nga xamante jigéen la. waaw te tey ñu nekk ci Women's Day muy xaw ma autocollant di neem aw again Euh, Fatou eh, Touré eh, Fatou Touré Fatou Touré ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana